wa tawaxada bi jamaali jabarutihi wa taazaza bi ulwi uhudiyatihi wa taqaddasa bi sumuwi samadaaniyatihi wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin sayidil anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi xadimihi mbokk yi ginnaaw bi ñu nuyoo nuyoo lislaam ñu fas yéene dellu si rek di fàttalante ci waxtu yu gàtt yi ñu fi am ci suñu mbirum diine li ñu fi indi da bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla di ndokkeel mbooleem jullit yi ci weer wu màgg wii ñu nekk muy shahr rabi al awal di weeru gàmm di weer wu màgg lool ci jullit ñi li ko waral mooy kiñ ciy màggal moo màgg lool ki ci gane àdduna moo màgg lool ba tax day jaadu ñu ciy ndokkelante di ci bég di ko màggal di ko fàttaliku ndax lu mat a def la lu mat a fàttaliku la ci buñ ko tegee ci sunna mooy buñ koy defit ñu war ca bañ a def lenn loo xam ne day juyoog sunna ni ko Mawlana Cheikhul Xadim di waxee taazimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati màggal ko kat teg ko ci sunna mën nañoo yóbbu ca àjjana jañ bëgg kon loolu rekk jar naa tax ñu koy màggal maaga yonent bi sallallahu alayhi ak fàttaliku ak juddoom lu rafet la lu baax la lu mat a def la dara mënu koo bonal dara it mënu koo dindi loolu lu mat a xam la yonent bi sallallahu alayhi moo toll noonu bisam moo toll noonu ay yëfam moo toll noonu kon loolu nañ koy bàyyi xel te ñaan suñu boroom nangul ñu ci suñuy jaamu yàlla ñaan suñu boroom it ñu defee ko defin wow dana dëppook suñ na ba liñ ci yóotu ñu am ko ci di ñaan suñu boroom yóbbu ñu ci jàmm ci bisu fukkeel ba ak ñaar kon tomb bi nga xam ni fas yéenuñ ko waxtaane tey dafa jëm ci mbirum yar yaraate ñu tarbiya ab yar ban jeexital la am ci ab société ku ne xam na ni ab société bu ñuy dox dafa laaj ña fa nekk nekk nit ñu yaru loola nag lislaam taxaw na ci situer responsabilité yi wax ku ne ka yar ak responsabilité ba nga am ca moom ñu jàpp ne lu mat a bàyyi xel la fexe nit ñi am ab yar fexe nit ñi am code de conduite boo xam ni ci la ñuy jaar dëppook suñu civilisation dëppoog suñu culture dëppook suñu diine te bu ñu nee diine moo ëmb lépp diine ëmb na culture ëmb na civilisation rawatina diine lislaam kon xadiisu ibnu omar radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ciy wax ni kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi hmm, jullit ñi kat nanga xam ni kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te sàmm bu ne dees na ko laaj lam sàmmoon ñu cay déggee responsabilité bi nit ki am ci ak njabootam ci war a xam ci nu ñu nekkee war leen a jaarale ci yoon woo xam ne danañ amal njariñ société bi loolu responsabilité boroom kër gu ne la xadis bi day wax ni imaam bi sax dees na ko laaj lam sàmmoon dafa am responsabilité ñii ñëw ci jumaa ji ak ñii ñëw ci moom mu leen di teg ci aw yoon di leen jàngal di leen yar di leen jubbanti responsabilité boobu kenn ku ne ca fa nga ne da koo war a yëg ndax ku ne mooy ku nekk fa nga nekk yaay defar ndax société bi mën a jag ku gàttañlu ci li nga yilif rek bu société bi amee jafe-jafe am nga ci responsabilité loolu kenn ku ne da ko war a xam kenn ku ne da ko war a doxee ab yar nag ku ne xam na ni mooy jëmale kanam aw xeet aw xeet mënuñoo jëm ca kanam te fekk nekkuñu ay nit ñu yaru prospérité mënta am ci am réew te fekk ne nit ña nekkuñu ay nit ñu yaru loolu mënul nekk développement mënta am ci am réew te fekk nit ña nekkuñu nit ñu yaru loolu faaw xam ko te loolu moo ñuy delloosi ci kenn ku nekk yëgaat sa responsabilité ca loola def ca la nga ca war a def su fekkee bëgg nañ suñu société jëm ci kanam te ku ne xam na ne ab yar la ca jiitu mooy defar bakken yi maanaam defar nit ñi ba duñ topp seen bakken ci lépp ab yar mooy defar nit ba du topp bakkenam ci lépp te loolu lu mat a bàyyi xel la bari waa na lu nit di def ci bakken rek la koy teg moo tax yarkat yu mag yi suñu sëriñ si nga xam ni dañ daan yar nit ñi moo tax ñu daan njëkkee ci tarbiya ruux ya fexe ba yar sa ruux yar sa bakken ba doo topp sa bakken ci li nga bëgg lépp ndax jafe-jafe bi yëpp foofu lay tàmbalee nit ki bu fekkee mënoo fexe ba maîtriser bakkenam mënoo koo yar kon yar li ci jiitu mooy paramétrer nit ki ba du topp bakkenam ci mbooleem li mu bëgg loolu moo jiitu ci ab yar te lu mat a bàyyi xel la loolu nag ñëpp mënuñu ko ñépp yit amuñu pédagogie boobu waaye nag am na ñu ko man boo ko mënut it da nga koy deflu loolu moo jiitu ci ab yar beneen bi it yar nit ki dana tax am xelam ñor te ab société ngir mu jag faw nit ña fa nekk am ay xel yu ubbeeku nekk ay nit ñu yeewu nekk ay nit ñu muus donte ñëpp nañu koo nekkit waaye li ëpp war nañoo yeewu ba ne jar loolu mooy am tax ab société mën a dem kon lépp luy tax nit ñi war a yeewu war nañ cee bàyyi xel di ci dimbalante ci yee leen ci jàjj leen lépp loo xam ne day nelawal nit ñi di nelawal société bi war nañoo fexe ba xeex loola ak lu mën a doon ndax yar ak loolu ñoo ànd kon loolu lu mat a bàyyi xel la suñ borom day wax aouzu billahi min shaytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi nga xam ni yéen a gëm na ngeen fegal seen bopp sawara ak seeni ñoñ bu nee ak seeni ñooñ lañ cay dégge mooy kon nit ki dafa am responsabilité ci aw ñoñam li nga bëggal sa bopp moom nga war a bëggal saw ñoñ moom nga war a bëggal sa njaboot nit ki it war naa xam ni ak njabootam responsabilité am ci responsabilité am lañ nekk moo tax suñu borom bi muy wax mu boole ci ak saw ñoñ waxul ne na nga fegal sa bopp dong sawara waxul ne na nga fexe ba baax yow dong waxul ne na nga def lu baax waaye na nga nekk ci lu baax te digal ci sa njaboot na nga fegal sa bopp sawara te jéem koo fegal sa njaboot kon lañ cey déggee mooy njaboot gi sa responsabilité lañ te loola nag mënta am fii ak jaarale leen fi nga leen war a jaarale loolu lu mat a bàyyi xel la ñuy delloo si waat responsabilité rek ci nit ñi ak seen njaboot wala mbooleem lu ñu yilif ak ku mën a doon da nga am responsabilité ci yar leen ci teg leen ci yoon kon yar yar rawatina yar bi nga xam ni moom la diine lislaam santaane ab programme la bu matale suñ boroom bàyyiwul dara bàyyiwul benn pàcc ci ni ñu war a yaree doomu aadama programme bi lislaam teg ngir nit ki yaru programme bu matale la programme bu doy sëkk la ci ku ko dégg ak ci ku ko xam ndax li ci jiitu li ñu wax sànq mooy defar ruuxu nit ki mu mën a yar bakkanam ba équilibré loolu moo jiitu ci programme yaru lislaam ba ca topp mooy mu tàggat ruuxam ci lu baax lépp luñ ne loo xam ni boo ca nekkee mu defar sag ruux di la fàttali suñu borom nit ki da cee war di ko boole ci programme am yarub lislaam noonu la tënkoo noonu la bindoo bi ci des it bokk na ci programme yarub lislaam fexe di conscientiser nit ñi di defar xelub nit ñi di leen yee di leen jàngal xam-xam yi am njariñ di leen jàngal li leen di jariñ ci àdduna loolu bokk na ci programme mu yarub lislaam bu ñuy wax yarub lislaam nag li ñu ci jublu mooy ñi nga xam ne si ay jullit lañ te amul njaboot day jaadu ci ñoom ñu xam lan la lislaam sant deen digg ak seen njaboot lañ ca war a jiital ak lañ ca war a teg ñu bañ koo dëpp bañaa jël njaboot gi def ko source d'investissement mooy nañ jàng xam-xam nàngam rek ngir ñu mën a nekk nàngam te nga jiital ab yar ci ñoom ak nite ak diine ba noppi loolu mooy responsabilité jullit ci diggam ak njabootam loolu mooy li nekk ci loxoom tam am ci responsabilité ëllëg ñu koy laaj waaye wéru sag njaboot seenu wér ci suñ loxo suñ boroom la nekk seenu xam wala xel mu neex ci loxo suñu boroom la nekk seenu am-am ci loxo suñu borom la nekk kon li nekk sa loxo yow mooy nga tëg leen ci yoon woowa képp moo nekk sa loxo ak yoon wu leen di mën a yeggale ca loola. loolu jullit bi loolu la war a xëntewoo loolu moo war a nekk yitteem loolu moo war a nekk fàggu téefam ci àdduna bokk na ci yaru lislaam fexe ba nit ki am njariñ am kàttan gog dana ca mën a liggéey jariñ boppam loolu kenn waru koo néewal am doom mu jàng dong doyut waaye war nga koy tàggat ci jëmm ba lépp mu mënal ko boppam lépp mu ko boppam loolu kenn war cee jiitu ab jullit xale du ki ngir muy dem ci école ba kese di jàngi di ñëw loolu doyut wala yóbbu ca daara ja dong mu toog fa di jàng loolu doyut jullit bi war naa boole ci programme am fexe ba doomam jooju mu mënal boppam ay man-man yooyu bis bu nekk bis bu beroo lu baree bari dana ko mënal boppam boo demee ci occidentaux yi li tax nit ki di mën a am dix-huit ans fukki at juróom-ñett rek génn këram wala génn kër baayam war dañ cee xalaat bu baax a baax fekk na am na lu bari lu mu mën mooy tax mu mën loolu mooy tax mu ñeme ko waaye waxambaane goo xam ni fóot sa survêtement sax mënoo ko loolu ak yaafus la dafa bokk ci yar nga tàggat sa njaboot ci lu bari ñu mënal ko seen bopp ngir buñ beroo mën a demal seen bopp ndaxte nit ki bu amee fukki at ak ñett li la waroon lépp moo koy war takk soxna da koy war jaamu yàlla yi da koy war kër da koy war lépp da koy war kon loolu mënta war nit ki te fekk waajaluñ ko kon lañuy dimbale suñu njaboot yi ci di leen tàggat ci ay man-man ci liggéeyu kër ci bricolage ci lépp loo xam ni dañ koo war a def nit di ko def amu ci luñ naan lii góor a ko war a def wala jigéen a ko war a def ñun ci suñu société dem nañ ba dugal ci loolu loolu li muy indi mooy ak yaafus rek lay indi day tax xale bi ragal a jël ay responsabilité day tax mu ragal a génn kër gi ngir sanc kër ndax mënut lu bari kon nañuy dimbale njaboot gi ci di leen tàggat ci ñu am ay man-man ci liggéeyu kër ci defal sa bopp gisoon nañ ko ci yaru daara yi ñu leen di tàggat xale yi ci ñuy rooti di fóot di ñaw seeni yére loola lu baax la nit noonu lañ ko war a tàggatee loolu ci ab yar la bokk dara ëpp ko solo ci ab yar ndax doomu aadama dafa war a mënal boppam loolu mooy yarub lislaam nit ki dafa war a manal boppam lu mënu dong la war a santaane kon loolu lu a bàyyi xel la yar nag buñ ko waxee dafa am ñu ko séq am na ci lool ci kër gi lay tàmbalee dañoo war a yar njaboot gi ñu xam ak yiñ am ak bokkal kër gi xam seeni devoir seen digg ak ñiñ bokkal kër gi seen digg ak seeni waajur seen digg ak seeni mbokk loolu dara jiitu ko ci ab yar xamal leen nuyoo xamal leen wax ndànk xamal leen worma xamal leen dal xamal leen fëgg ci bunt bala ngaa dugg xamal leen simisee daal la lépp loo xam ne war na koo xam ci kër gi nga xamal ko ko yu ñuy sàgganale léegi te lu mat a bàyyi xel la ndax responsabilité la si diggante ak sa njaboot ci ab yar bokk nañ ci ñi xam ci kër gi nga xamal ko diggam ak dëkkandoo yi ban àq la am ci ñoom fan la war a yem ak ñoom fan la wërti egg ak ñoom lan la war a xam ci ñoom lan la wërta lu ñutu ci ñoom loolu lu mat a bàyyi xel la te ci ab yar la bokk ndax bokk na ci jafe-jafe yi gën a mag mooy ñàkk sàmm sàmm àqi dëkkandoo te loolu ab yar moo koy def yar mooy tax xale yi xam ni dëkkandoo yii dañoo am àq mu xam ni ñu jëflante ak mu ñoom loolu kon mooy yar bi nga xam ni ci kër gi la aju am yar boo xam ni ci école bi la aju maanaam fa muy jàngee bu ñëwee école mooy fa li jublu mooy fa muy wala fañ ko yóbbu ngir mu fay xamlu foofu it fu mat bàyyi xel la ci ab société ndax suñ société yi liñ baaxoowoo mooy jàpp nañ ni ab yar moom ca école ba lañ koy defee maanaam ca jàngukaay ba lañ koy defee kon jàngukaay boobu it pàcc bu am solo la ci yar pàcc bu am solo la ci société bi pàcc bu am solo la ci avancement wu société bi mën nañoo wax ni su baaxee société bi baax su bonee société bi bon moo tax war nañu di renforcer yarub diine maanaam di tàggat xale yi ci côté spirituel ci jàngukaay yi moo xam nag jàngukaay bi éco français lañu fay jàng wala arabe la fay jàng wala lu mu mën a doon war nañuy fullaal tàggat xale bi li ñuy wax tàggat ko ci ay jikko mel na ni sunu école bi dafa feebar ci wet googu mel na ni it jafe-jafe yi ñu am lépp it loolu muñ ko indil mooy ñu am benn système boo xam ne ni mu war a taxawee cib yar taxawee wut noonu te ñu war koo taxaw évaluer ko te ñemewuñ ko évaluer suñu école bii ñuy jàng ban programme la am ci yar ban résultat la def ci yar loolu lu mat a évaluer la. bu dee am na ñu xam ko bu dee amut it ñu fexe mu am gis nañ école bi di génnee ay ingénieur ay médecin ay architecte lu ne lu am yoo xam ne si ci métier àdduna yu am njariñ waaye école bi ban type doomu aadama la génnee ci ab yar lan la yokk nit ñi ci discipline école bi lan la yokk nit ñi ci ak dal école bi lan la yokk nit ñi ci yaru école bi lan la yokk nit ñi ci respectante école bi lan la yokk nit ñi ci xam say wareef ci réew mi école bi lan la yokk nit ñi ci xam say devoir ci réew mi loolu war nañ ko évaluer boobu ba léegi ñu ngi samp ab école di jàng yàgg na lool waaye war nañoo xam école boobu ban programme la am ci yar ak lan la ci réussir ci àdduna ci ci réew mi buñ nee yar nag ak mooy ak langue bu mën a doon moo xam école française la moo xam école arabe la war nañoo évaluer lim réussir ci yar gis nañ sax ñi nga xam ne si école arabe la ñu am culture islamo arabo islamique bari nañ léeg-léeg ay matières yu diine yoo xam ne si sax dana leen tàggat ci spiritualité ci seen côté jaamu yàlla ci ay xadis yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam da ciy jàngale ay yar ak ay teggin ak jëflante ba danañ ci am tuuti ñoom donte doyut waaye nag benn côté bi muy école française bi moom ban programme la am ci loolu lu mat a waxtaane la ndaxte li ëpp ci suñuy njaboot ca lañ ne ci réew mi kon war nañoo exiger programme boobu am bañ xam ni école bi kat suñuy doomañ ci ne te da lii lañ bëgg ci ñoom te fii sotti wut amul njariñ jàngi langue lu baax la làng yépp am njariñ waaye nag am programme mu yarit jàpp naa ne lu baax la ci am réew luy defar la luy dimbale ñi ñu jiitee la ngir réew mi mën a jag ndax bu njaboot gi jagut réew mi du jag kon loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a jàngat la lu mat a waxtaane la ci am réew ndax ñun jafe-jafe bi ñu am mooy complexe langue te ku ne xam na ni ab société du développé ci jàngi làng képp ab société li koy développé mooy nit ña xam seen culture xam seen civilisation tabax nit ñi bañ dëppook société bi loolu la noonu la su ab société doxee moo xam ci langue woo ko mën a jàng nag baax na waaye waruñoo focaliser wu ci làng te dal nañu ci lu baree baree baree bare ci côté arabe ak ci comme ci côté français comme ci côté yeneen langue it ñu jox ko doole jot tax na yitte ji ko jox daa ëpp solo yitte yi jox xam-xam yi nga xam ne si day tax nit ki mën ab métier wala xam-xam yi nga xam day tax nit ki yaru te jàpp naa ne ab société loola moo koy doxal ndax it lislaam noonu lañ ko jàngalee aw xeet dañu leen di defar aw xeet dañ leen di defaral dangay amit programme boo jëmee nit ñi ndax li ngay def mën a dox lu waay mën a def ku ne xam na ni am réew du dox bàyyi fa nit ña am réew mënta développé bàyyi fa nit ña am mënta avancé avancé bàyyi fa nit ña kon defar nit ak tabax nit ak yar nit loolu mooy développement réew wala bokk na ci kene yu jiitu ci développement kon yar lu am solo la moo tax lislaam jox ko dayo bi mu ko jox jox nit ñi responsabilité yi mu leen jox ci ñu war a yaru ku ne xam na ni langue yi nga xam ne si dañ koo jox yitti ba mu ëpp jafe-jafe bi mu ñuy indil mooy ñi exporter ay culture rek la ñuy indil di jëli culture jàmbur di ko saxal ci ay nit di ko jëmbat ci ñoom te adapté wul ak ñoom moo xam muy français moo xam muy arab war nañoo xoolaat suñu bopp tëggaat suñu programme njàng ba mu dëppoog ñun li ñu doon ba mu dëppoog type sénégalais bi ñu bëgg ku ne xam ne loolu képp mooy suñu jafe-jafe loolu nag courage bu rëy la laaj na jur a boo xam ne xëy na gisaguñ ko te loolu ñëpp di xaar. képp koo xam ne am na conscience xam na ni yoon yii ñu jël di ci am njàng sore naag yoon wuy defar am réew wala muy defar am nit ndax lu ci ëpp culture jàmbur la ci misaal réew moo xam ne tey ñu ci ëpp école française lañ jàng bàkku réew ma sax ci làkku jàmbur lañ koy wax ñi wax bàkk bi sax ñi ci ëpp xamuñu li muy tekki ndax sa bopp weesuwut loolu loolu mun laa jox dara loolu mun laa yokk dara loolu mun laa jëmale fenn dañoo war a weesu nag fu ñuy naxantee Sénégal wala tuta toll foofu di wax ci loo xam xamuñu ko di dox ci loo xam xamuñu ko ñu naan ñu lii mooy seenu bàkk te bàkk bi kenn xamul lu muy firi kenn xamul lu muy tekki kenn xamul fu mu jóge loolu nax sa bopp la ak naxante il faut ñu am courage ci njàng mi ñuy jàng buñ bëggee réew mi jag il faut ñu am courage ci defar nit ñi il faut ñu am courage ci liggéey réew mi li dëppook nekkin waa réew mi ak bëgg-bëggi waa réew mi te loolu dara mënu koo indi lu dul ñu soppi li ñuy jàngee te jàng luy jariñ nit ñi jàngal nit ñi lu leen di jariñ ak loo xam dana jariñ réew mi loola fii defuñu ko rek dañuy guddal ab jéel la loolu jàpp naa ni lu mat a bàyyi xel la rawatina fi àdduna bi tollu nit ñi ni ñuy rawantee du dara lu dul kenn ku nekk di développer say man-man ngir raw ci keneen kon war nañoo weesu fu ñuy importer ay làkk ngir da ca jàng loolu kon lu mat a bàyyi xel la nit ñi it war nañ leen a tàggat ni ñu ko fi daan waxee ci ay waxtaan di leen former ngir ñu mën dara ndaxte man-man yooyu mooy tax ku nekk am loo mën a def waaye ku ne xam na ni éco suñu école bii li muy génnee buñ paree ña man dara ñu néew lañ loolu it war nañoo am courage taxawaat jàngat ko. soppi ko allahu akbar kon ñu continuer di fàttalante ci liñ doon waxtaane rek muy ab yar ak njariñam ci société bi ñu toll woon ci ne nit ñi dañ leen a war a yar am ci loolu responsabilité parent la am ci loo xam responsabilité état la am ci loo xam si responsabilité képp ku am kilifteef ci nit nga loolu lu mat bàyyi xel la bu fekkee ni dañoo bëgg a tënku rek ci li ñuy wax système éducatif ku ne xam na ne loo doyut li war a am mu li ñuy wax société éducative ñi nekk ci école yi di jàng ñoo gën a néew fuuf ñi ci nekkut wala ñi ca génn ba noppi kon day jaadu ñu am ab société boo xam ne day tegu ci yoon te loola mënta am fii ak ñi jiite yëguñu responsabilité boobu ne nit ñi war nañ leen a tàggat nit ñi war nañ leen a yar ngir ñu mën a def dara sagam yar bi ci école bi li ñuy wax sax doyut rawatina ak ñi nga xam ne nekkuñ ci te ñoo ëpp fuuf di fàttali li ñu waxoon léegi rek am réew mënta dox bàyyi nit ña am mënta dox bàyyi nit ña nit ñaa koy doxal te nit ñi koy doxal dafa am lu ñu war a mel réew moo xam ne dañuy dem ba mu yàgg. ki ko jiite moo naan génn leen ñu bale wala ñu setal ngir nit ñi doo ko génn setal kon problème am na aw xeet bu ñu tolloo foofu problème am na donte loolu lu symbolique la fàttali la lu rafet la waaye aw xeet bu ñu demee ba dañ leen di wax ne setal leen ñu doo ko setal fi ñu nekk am nañ jafe-jafe lañ cay déggee mooy set culture la ci nit ñi ñu yar leen ci ñu koy def bu nekku ci ñoom yaruñu leen ci duñ ko def ak lu mën a xew kon war nañoo xoolaat suñ bopp te nit ñi nekkoon nañ foofu ci suñ société ay nit ñu set ñoo fi nekkoon suñ mag ñi suñu dëkk àll yi ay nit ñu set ñoo fa nekkoon li dindi loolu nag lañu war xool waaye kon problème bi génn leen bale réglé wu ko wax naan set leen réglé wu ko principe bi mooy nañ fexe nit ñi nitewaat te loolu ci ab yar képp moo ko mën a def yar képp moo ko mën a def nit ki bu setul ci biir néegam setul ci këram du ci setal du setal mbedd mi kon nañ gën a defaraat nit mu ëpp solo programme yi baree baree bari yu ñuy développé ñiy defar nit ñi sax dañu ne war a defar ci misaal da dem ci école yi xale yi bu ñuy dugg ñu naan leen dangeen ngeen def da ngeen di rang ñu rang dugg bu 13h jotee bu ñuy génn ñu ne leen sortee ñoom ñëpp ñu daawandoo xëcc njëkkante njëkkante buntu ba léegi lan mooy principe bu rang kon rang principe la. culture la ki nga koy def loo da ko war a wax li tax mu koy def mooy tax buy dugg oto du njëkkante buy dugg ci barab du njëkkante buy dugg feneen du njëkkante buy génn classe bi du njëkkante waaye yow mii ne am nga péda pédagogue nga am nga pédagogie raaloo xale yi ñu dugg ci biir kalaas bi te bi ñuy génn ñu njëkkante fël la génn kon problème am na nañ defaraat suñu système bi ñu nekk te am ci courage te sérieux ci tey évaluer li ñuy def ndax am na njariñ wala amul njariñ lu loolu dina dimbale réew mi dina dimbale société bi parce que suñu société dafa feebar dafa bari lu ñuy bàyyi muy jàll te wërta jàll te buñ ci taxawul ci guddal jël képp lay nekk te it lañ ci mën a génnee mooy ab yar yaraat nit ñi te dara jiituwu ci yarub diine dara jiituwu ci yarub diine niñ ñu ko waxee sànq defar xolu nit ki fexe nit ki bañ a topp bakkanam fexe nit ki di fàttaliku suñu borom fexe nit ñi di respecté ñi mu amal affaire loolu mooy yarub diine génnul loolu lu ñu war a instauré ci suñ programme bi ñuy jàng la ak làkk wu mën a doon liñ bëgg a wax rek mooy nañ gën a góorgóorlu ci defar nit chantier yi gën a mag ci réew mi mooy defar nit ñi bañ yaru lu am solo la lu mat a bàyyi xel la bu dee ñi nga xam ne si weesu nañ jàng wala ñu leen di yar amul benn réew mu ñu dem ci àdduna bi bu développé te du ne ñin ñi nañ leen a tënk ci ay loi fexe ñu xam seen i devoir fexe ñu xam seeni droit looloo jiitu ci am réew sénégalais bi gën a xayee di boo ko jëloon yóbbu ko ci benn réew mu développé bu demee bu eggee na nit ñay def lay def lu ko waral ndax lan réew ma dañ koo tënk ci ay loi teg ay daan yooyu ku jalgati li ñuy def ñu teg la ko loolu kese moo ñu wutaleeg ñoom benn doomu aadama bi la bi nekk Sénégal moo nekk Chine moo nekk Amérique moo nekk France li ñu wutale mooy lan réew muñ teg ci ay loi yoo xam ne si dañ koo respecté nag te maase la ci ñëpp respecté ko te maase la ci ñëpp loolu moo ci jiitu loolu bu amut ñi nga xam ne si weesu nañu yar ci daara wala weesu nañu yar ci école mënuñoo leen a teg ci aw yoon lu dul ci noonu kon am réew day ami loi yu dëgër te loi yooyu ñu teg ko ci kaw ñëpp loolu dong moo ñu différencier ak réew yi nga xam ne si jàpp nañu ñoo avancé te lislaam diine ju civilisé la diine ju fonk doomu aadama la diine ju fonk nit la te réew mi li fi ëpp ay jullit lañ kon ci wet giñ manee mooy nañ fee profitoo ci loola ngir defar réew mi suñu mag ñi ku ne xam ne dañ daan defar nit nit lañ daan defar ñoom Cheikh ma Bamba radiallahu anhu mbooleem ñi nga xam ne si yar na leen ku ne gis na ci ku ca ne ca ñoom ba ngay sanc ab dëkk yor ko yor mbooloo amul fanweeri at kon dañ laa defar ba noppi moo tax am na ci ñooñ amuñu sax ñaar fukki at ak juróom loolu lañ doon wax sànq ci defar nit ab société mënoo koo defar te defaroo nit ña defar nit mooy tax mu mën a am bagage yooyu ba mën a sanc dëkk ba mën a yor ay nit kon loolu lu am solo la dañuy dégg sax fu mel ni Touba ñuy débat ci dañoo war a jàng français waruñoo jàng francaise ak école française ak école arabe waaye loolu lépp bariwut solo la am solo mooy defar nit ña ak ci làkk wu ñu ko mën a jànge làkk wu ñu fa mënti indit te defarut nit du am njariñ programme bu ñu fa mënti indi te defarut nit du bari njariñ teg programme bopp day defar nit ba mu dëppoog ni borom dëkk ba bëggee dëkk ba loolu moo mat a xalaat làkk wu mu doon baax na kon amuñu problème mu làkk problème mu programme lañu am tey dañuy fàttali nii rek waaye am na ñu jiitu woon ñoo am ñu am xalaat yi bind ay programme teg fa ñu sant leen ko ñu liggéey ca ba def ay programme yoo xam ne si dëppoo naag nekkinu dëkk ba dëppoo naag waa dëkk ba dëppoo naag ni sëñ bi bëggee dëkk ba bañ bind ko ba teg ko xëy na mbir yu ñàkk nosu moo waral loola tegoogul ba léegi waaye loolu mooy wax ji waaye du problème mu làkk lañ am ak problème école française wala problème école arabe luñ mën a jàng te def te teguñu code de conduite boo xam ne si ci la ñuy jaarale nit ñi ba borom dëkk ba na mu ko bëggee ni mu bëggee nit ñi nit mel nit mel noona jaaraguñ ca yoon wa ndax bokk na ci li borom dëkk bi gën a bëgg mooy ñàkk complexe bind na ko bu ñuy wax ci masaalikul jinaan nga xam ne fii lañ tuddee masaalikul jinaan ku ne liir na ko lam fa yëkk fa gën a yitteel bokk na ci nit ki ñàkk complexe kon loolu moo gën a yitteel kon nañ fexe ba ña fa nekk ñàkk complexe boobu moo xam ci làkk wu mën a doon di ñaan suñu borom defal ñu ak dégg ak topp di ñaan suñu borom def nit ñi seen xel yi wëlbatiku ba nite di ñaan suñu borom ñi nga xam dañoo am responsabilité yi ñu yëg loolu xam ne defar nit jot na ndax nit mooy def mooy àdduna ñuy fexe it bañ xam ni lii ñuy jàngit lu ñu war a soppi la ngir nit ñi mën a nite di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi di ñaan suñu borom defal ñu barke ci weer wii ñu nekk di ñaan suñu borom defal ñu tawfiix di ñaan suñu borom faj aajo yëpp faj jàngoro yëpp ci barke sallallahu alayhi wa sallam axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin